نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين برم الله دين جاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sama mbokki taalibe نعم الحمد لله على كل حال suma salatu wassalam ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam mu mel ni buñ jiitalee sant yàlla borom tabarak wa taala cant go xamni man na fu mu tambulé waye la khayat la wala sax ñu wax alhamdulillahi xaqa xamdihi ndax na mu toll xamuñu ko waaye ñu jàpp ni day talaayu fa cant yam rek ñu ñaan ko mu yóbbul nu ko fa suñu yéene egg na lu tax loolu mooy mbaaxam gu réy gi mu won ak ndimbalam lu réy li mu won ak xéewalam yu yaatu yi muy may ci yépp yu ñuy dugg nag bu dee Tuubaa li ñuy bëgg a organiser yàlla nga ñu ci may ndam jar na sant ko bu baax a baax bu dee mbaalee ni barki démb ji jàll lañ yéenoon bëgg koo def yàlla may na ñu def ko ci jëm bis bi ci boppam waaye ci jëmbi kër gi ci boppam ba tey jii du jublu ci siyaar bi ngeen bëgg a def yàlla na ko yàlla nangu yàlla kese kese lal ko ak teerul ko weeram mu màgg wii di ñëw ak dogalal ko jaamam yi waaye def te tarbiye ci taalib yi Sëñ Tuubaa yi ci seeni ñaq ak seeni jëmm kon yàlla bi nga xam ni lu mu nangu mu sotti ni mu may événement yi passé ñu réussir ko totalement yàlla nañ ko may di ngeen bëgg a def te jëf ju yàlla nangu mooy jëf joo xam ne boo koy jëf da koy sawar jëf bu ko yàlla nanguwut mooy da nga cee tayel loo def ay at te at mu ñëw raw ëpp ma weesu da ngay gëm ni yàlla nangul na la ko te njaal benn gi mooy siyaar seen kilifa waaye bi mu demee ba mat dañ ko soppi siyaaru weeru koor ngir jëm yàlla royee ko ci xadimu rasul mi waxoon ni yaa xayra dayfin xat ata bil bisri madadi kon dafay jaadu kilifa gu toll ni moom su dee tatagal di séntu weeru koor ba di ko tagg di ko wax ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi manon na ahlan wa sahlan wa tarhiban te bilaa xarat ban cee bokk waaye ak kontante ak ak ak dalal bu amul app la wax Sëñ Tuubaa wax nañ ko def wéro koor wi pourquoi sa ñu koy def jaam la bu yalla yoni ci ñun mo andal leen ñu ay valeur mo weeru koor valeur yu bëgg yalla valeur yu ni wala lu toll ni gore ci ci ci sawara wala lu toll ni dëkk aljanna waaye valeur yi toll ni am ngërëmul suñu borom weer yi yëpp lu ëmbaale bi mu ko ëmbee ba noppi mu ëmb alxuraan ci biiram ëmb juddu ëmb ru ñaanu yonent bi alayhi ci biiram sëñ Tuubaa nee ne kooku daal su ma koy su ma koy teeru bilaa xadadin kon nag buñ dee taalibeem ngeen wàcc wàccaay wuréy wii ngir jëm yàlla tàmbali ko daaw ba ñu ñu dëgmal ko nu ñaan fekke ko te yàlla nangul nu ko ci barke xaadim rasul suñu jëwriñ ji moom lu mu def lu ne ku ko def wàcc la ndax moom lu mu def noonu la bu jubsee boo wàccee pencum Tuuba da xam ne la mu woote woon nañ ma ko defal weer wi da xam ne taalibe yaa ngi koy def xëy heure bi nit ñi woor ñu woor ko fas yéene dog heure bi nit ñuy dog yemuñ ci woor gi ak dog gi waaye ñu fas yéene ko woor ñu dogal la loolu da Sëñ Tuubaa wax moom kon nag fu taalibe bi mu nekk fu nekk boo ko tegee bu war ko roy barakallahu fiikum ngeen bi ci sonn nag fan yëpp fu ne yéen a nga fay awak wax ngir dimbali joom jaam yàlla borom bii moo wax tabaraka wa ki ma gënal ci jaam yi mooy ki nga xam ne at xama um min juu day fekk ñu xiif mu fexe bañ lekk yàlla ko wax wax na ci alxuraan ni yéen jaam yi kuloo mina tayyibaat ngeen rek kopp yi ko fa feet seet lu neex lu jaam mën a mën a jariñoo di ko jox jaami yàlla yi loolu alxuraan la jaamu yàlla boo xam ne mën naa am am na ndogu waaye amul lu mel li ngeen am am ko amul ndogu te bëgg fu mu ndogoo am koo xam sax dëkku fi xàmmeewu leen fu waay bàyyi ko ngir jëmmi yàlla rek def ko ci kër sëñ war ngeen xam ni seen Ali ibn Abi Talib di ko alxuraan di tudd mook doomam yu tedd yooyu te di wax fay guru rëy gi len yalla nara fay euleuk pourtant bo wadé Aliou xare na ba bëgg a dee ak yonente bi lim bokk ak mom denc doomu Seydina Aliou alayhi wasallam juru ay sëtam waye kéré bu duggé ci joxe la ko suñu borom tuddu wat ci tuddu njabota wax lim len nara defal lolay di am yuhibuna tahama ala hubbihi ya rasulullah mu ne waaw mu ne ko dama am ak yow waxtaan tey ci sa njaboot am na ci si biiri gaa yi ñoo xam ni mu ngay fob ñam bi ñu gën a bëgg di ko joxe te heure bi ñu koy joxe soxla nañ ko waaye gëm ma man yàlla rek a tax ñu di ko def te li yéeme yàlla jëwut waaye façon am la ki jëf-jëf jaa ngi fi moo waroon wax ak moom waxutoo da koo jéggi jëm ci kilifaam kon kon ñor na ko manoon naa wax ak kër jëf ji feeñu ko ci gént ni ko jërëjëf ndax gaa yaa koy def waaye ni mu réy ci moom moo tax na ko faa jël dem ca ka ko yilif ni ko yow laay sa njaboot bii fekk naa ko mu xiif fekk naa ko mu mar njabootam feebar ñu xiif ba noppi mar waaye lañ am ko si néew ma ko jëfëndiko bin ma bàkkee fop nañ ko joxe moo tax maa ngi lay seereel yow Seydina Muhammad alayhi bu demee ci yow man kaana sarruhu mustatira mu ne waaw mu ne ko sa wakër kër yi ñoom duñ ko duñ ko yëg bis nga ci kanam boo xam ni lu yàlla bind ci kaw suuf di nga tiit ndax tartara yu bis ba ci tàngoor tartara yu bis ba ci lëndamaay tartara yu bisu ci mettukaay waaye suñu yeggee foofu ak ñoom ñii defoon jëf ji mu ne maa ngi lay xamal yow seen kilifa boo paree nga def déclaration bi yëgal yëgal leen ko ñoom du ñu tiit lu mu jàq dina tax bu keroogee loolu de la wax gis nga bi ñu koy def yonent bi dafa posé question lu tax yàlla nga dara defal sama waa kër yi lii mu ne bi ñuy jëf-jëf ji laa nuriidu minkum jazaahan wala shakuuraa soxla wunu cantaayu kin doon jox ngato bi wala fuufu bi wala wala wala wala benn benn fur wi soxlawuñu gërëmam man rek lañ doon dàkk waaye man min doon dàkk ba sax soxlawuñu gërëmul waaja man mën naa ci ñoom lu waaja mënut yàlla ko wax ci alxuraan de seydil wujoot yonente mi ne ah mu ko sa njaboot ci ñoom de ñoom de yoofoo na bi nasira te loolu dafay jaar ci nun ñi sëñ Mata yéen ñëpp ko ne li ngeen niseroon ci siyaar bi ni seen ali ñoom defoon seen niser bu rëy ba lii lañ war a def ngir yàlla ku waxoon ci siyaar bi loo wax war nga niser war nga koo mottali ndax niser yàlla da koy diglu te xaar ba xam di asan wax dañ ko entendre nu ko waxee léegi attendre wala déet moo tax moo tax moo tax wax na dëgg bay ba joxoñ ko bu baax lu waaye waxoon na ko def yafulu bi nasri lu waaye waxoon na ko def ndax ki ko waxoon moom def na ko sunu borom am nañu sérieux problème man maag sama waa kër boo xam ne yaakaaruñ ci benn médecin yaakaaruñ ci benn docteur amuñu sax moyenu jënd ordonnance waaye xam na ni yow yaay tege feebar yaa koy teggi duñ jënd suñu néeg fii la ñuy tëdd so fexé ba doomi wir nok yaw dari sangu sen badji demu ñu hôpital jamu ñu safara na nu reen señ borom neen di ngeen xamni nak ginaaw médecin mi yor brousam di gemetu di nelaw di xif di mar mo meuna faj asaman mi nga dégg affaire man yalla jam du du du du man walam yalla di télé côté na la won lima man ci yeen misère ba lay wax de suñ borom mu defal leen lañ bëgg seppi ci loxoom nag man pare naa ci affaire bi yéen ci des kuy ni sërëti ko ne na ko bàyyi xel mbir mi nii kenn waajalu ko ngir sëkkaru bopp ku ne na koo jëf jëme kër yàlla fan mooy kër yàlla fan nga ko yaakaare ci kan ka nga yaakaar soo ko defee ba noppi kooko jox la ndigalul ni la Jami yalla yi rek la bëgg ndax yalla ma waxal bopam ni annaasu hiya ku ne ci nun ni nga mëna fa bëssal sa tek ci bop kenn ni sama doom wala ki sama soxna wala diw sama borom kër wala sama nangama ba tax nga sañ ko wax ni sama suñ borom non la ëppé sañ-sañ ci yow mom mi la bind ni ni jam ni moy sama njabot yalla neena na nit ñi moy sama njabot ku ma wuutu ci ñoom ma wut la sa bopp nu ànd noog yéen mel ni ku comprendre wax jooju ci waxin sëñ bi bu woon ñu lekk tanaan heure yi ñu koy def di tudd yàlla téereb sëñ Tuubaa bu màgg bii fulkul masoom sëñ Tuubaa wax ni fu nu koy jànge fu ne ku fa nekk ku ne feeram araamal na sawar pourquoi ça borom sawaraab ko nangul mu tudde ko gaal boo xam ne ku ci diggu mucc téere bi pourtant ñun ku yàlla may may nga am oto bu baax xam dëkk bi nga jëm taam gaasuwaal waxtu boo ànd ak sa sëfuur da nga nan barap sangam la jëm te hafas fa yéene egg ku ginaaw yaa wuru lu ci sa auto bi nga yor yow nangulul sëñ Tuubaa fulkul masxoom bi kóolute gim ci am parce que ni nga wuru li nga yor rek la wóoroo li mu parce que kley sam yak sa oto ba yobul rek ba nga jëm moy sàmm sa seigne sëñ Tuubaa bi ba yóbbu ki ko gëm fam jëm téere la boo xam la commencé ca buntu ba tarjumaan ji ba ba ngay egg ca xatmu ba waxu ci boppam mm-hmm. yàlla boroomam rek la ciy wax diineem ji ak rasulullah alayhi salaatu wasalaam ba egg ca fin ba waaw ku ne ci nun de man de léegi ma waa ji waxee fii lii ma wax nii li ma ko si néew jox naa ko man waaw kon ku wax yàlla lu toll ni li Sëñ Tuubaa wax yàlla ci ful ku masoom ba mu teeri fa mu teeri man damaa jàpp ni daal maanaam bu ngeen ma ko nangulee ak sama doy di gënuma tabe yalla man man nga xam sama 1000 francs may waj nga bak yalla bak yop yoyu tam man ma may man epp li ma te yàlla may nangul lu sëñ tuwaali wax waay daam be sun ben mbokk law be ba dem ci jang ya. diglu waji yekati mu yalla dimbali lako ba man na firi dara mom bo waji tege bat rek mu man ko firi xam ci ni ki mu yaasal wu jóori mooy kii maye yow mi nga xam ya mana maye. ak mom bat par bat bat par bat ba yag mu jek jek ñew taxaw ci géew mi ni gaay yi lii ko wax. ñu ko xarim rasul mu ne man de kuma ko waxon ma may la sa mbaam law bi bi neena li yalla wax li seigne tuwa wax yalla ci de ci man de mbam képp la am waye kuma ko waxon man mo may la mbam mi may wax. waa law ba day gën a tabe yàlla moo tax sëñ Tuubaa bi mu liggéey liggéey bi bi ci pour ko masoom def ci ay garante yi ko yàlla may suñu borom a ko wax ci xasida gi ko barab buñ ko denc képp ku fa faatoo doo lakk doo lakk xam nga suñu borom moo wax ci alxuraan ni wa huwa ma'akum aynama kuntum wa laahu bimaa ta'maluuna basiir bu leen am sikki sàkkan yi fu ngeen mën a ne yéen jaam yi rasulullah alayhi salaatu salaam yéen ñi ko gëm mi ngeen nekk mu ngi loo si yéen seen biir kër yonent bi ku ne ci noonu yonent naa si biir kër sa basira yii saayir moo ko mënta gis waaye sa basira xal bi boo yëngutoo gis ko yéen soxna ma ren rasulullah gi sa kër mi ngi kër sëñ ji bi mi ngi sama kër waxu maaxa ko mi ngi ànd ak yéen ay na maa kuntum yàlla du juum de defe naa nii juumul ci France bi de fu ngeen mën a nekk mi ngi ànd ak yéen waaye yëmul ci waxu moom yonente bi maa ko mi ngi ànd ak yéen waaye la ci gën a doy waar walaahu man mi ko bind bind leen basirun maa ngi koy gis sëñ bi xam nee na maa ngi gis rasulullah yéen nag xam nga waaye maa ngi gis ne mi ngi ci yéen bu doon recopier lu ñuy recopier képp ku nekk ci ñun photocopie yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ne ci yéen sa bopp miimam la sa dënn xayinam la sa ndigg miimam la sey tànk deelam la xanaa nit kay foo wékk fotoom bu la nee kii ku noonu man de gis naa ci kër yi foto sëñ ko laaj ci gaa yi mu ne gis naa ko suñ borom daa foto yonente bi def ko si jëm waxuma xakum ay na ma kuntum wala ma taxmaloon a basi xoolal ma jooju jëm ba ca des mooy na nga yëg nii xam nga nit li tax mu tudd nit day fekk ruu nekk ca moom deretam di law te li ñuy tuddee ruuxul xut daa bokkul ci doomu aadama fa nafaxnaa mi min ruuhinaa bi muy dem ci yonent Yàlla Iisaa dañoo fekk yaay yi ñu fab ruux dugal ci ruux benn doget la bu bokk ci leeri suñu borom ku mu jug ci nga faatu moo tax boo wutee ci nit yàlla li fekk ruux gaa nga fa mën ko am ci moom boo toroxalee nit toroxal nga yàlla loolu li am kon nit dafa for nit ku for koku nak ñun kenn japp ni mo ci gëna for ci suñu bis mooy Sëñ Tuubaa ginnaaw rasul alayhi sallallahu alaihi wasallam mom mo a gën a foor ci noonu nga xam foko foo fekk ñaari téré qur'an yu la daan bok ci wet gi wala fulkul masum bi nu ko jàngi ni man def gis na sëñ Saab Ture mii yalla yàlla dolli mu xey bis ne Cees mucc na lu tax mu ne jàng nañ fi fulku parce que am na ngëmam xam nga navigateur walla boog benn benn benn nappkat kenn ki nu mu tuddati sax pêcheur ba am gaal gu baax dugg ci biir géej gi tam baal mu man a laaw nag sànni ko fu am jën dem ba ci biir mu ëmb la mu ëmb lépp ba ba ba ba nga jàpp ba mu fees def ci gaalam ndaw ba teer ci tefesam bu leen saa wakkat nañ añ dañ ko war a Sëriñ Tuubaa daa mbaali won japp lu bari def ko ci biir suul kumba son jox nu ko ñu koy liggey ci njabotam ba pare ñun ñu yott ci ordre ak ndigal manam mbolo bepp day fi di ko diglu malaayka lu bu bi ñëpp di diglu te mom mo wax ni sama xasida fu ko yëkkatee yalla bekk bekk malaika yi bekk aras jaayu kursi yu jaayu ñoom ñepp dañu and di Sabal. mako bindu de hmm isa katabtu ihtasa harful baahi yemu iya, ca de wa sabbat malaikatu ketubahi. noko wax fini li serif don wax ni bu yakul araf bi motax ñom nañ def très attention fini sa yu yëkkatee xëjëri gi aras day yëngutu diwan day yëngutu malaakai andak mom di mais soo yàqee araf bi dañuy taxaw ma ko jànk di bàyyi xel moo tax ma daa wax ne bu leen ma waxoon lu ma waxut gisoo nit ñi rek ku ci am son bu la neex man léegi bi gaa yi jàng maa ngi doon def nii waaw malaaka yi da nga leen gën a bëgg lu neex dañuy jaayu yonent yi nag dañuy jaayu Sëriñ Tuubaa mi moom mi ma bindihum Dan dan dan xasida gi ci kanamam mu jekk ba yàgg mu aalu fop alalam bi xëpp ko ko def ba yàgg mu mu ne ne ko ngay wax ni wax sama sang waaw aal daf ko daan dikkal moom xadim rasul mu téye jàngkat ba fëgg ko ba mu gestu ko li nga wax wax sama sang bi kooku tek mu ne su ki wax sama sang bi ma bàyyi lépp lu ma doon def dem tarbiyu ji ala koy jàpp mu de moom du yëgati moo ko bind maa ngi leen di wooteele ñëpp parce que yéen ànd ak yéen lu bokk liggéey bi mbir mi nag sëñ bi gaal la rek boo xam ne ku ne da ngay futu ko def ci lu ne ko xaaree événement su bis ba jotee ku ne la nga ci defoon ngay jël sol ko ku ci deful dara bu ubbee gaal gi amoo ca dara kon nag ndokk biñ ko wutalee bis boo xam ne bu dimanche jotee ngeen fekk taalibe bu ne fam ne la nga am saw ñaq nga def ko ca ñiinul le parce que cinq mille bi génn ci diw wala ci soxla diw dugg ci biir gaal gi jëm kër yàlla bu fa duggul woon borom jaay ko def ci leneen parce que heure heure heure heure départ moom cinq bi jot na de fokk day dugg ci yàlla mbaa mbaa mu dugg feneen jërëjëf sëñ Jibi kon nag nan ko waajal te kat nun nun nun nun wolof nee na ku dee ku dee ca marché yaa tàgg sa bopp jaam ñi miinal nañ seen bopp bu weer koor jotee buntu kër bii ku ne nga fi gis ku ne daaw dama mujj yéemu foo bàyyi ersa foo bàyyi koo fayu foo bàyyi koo dëkk sàngam looy def dañuy laaj si citoyen yi ba ma da nga naa sax lan moo ne publicité waye nak yalla mom këram moom i jaamam te segem mo wërsëgam leen dem leen bara sàngam jëliko xorodom fa muy bayu bayu fa dara waye bu xiifam jotté suñ borom mo xam tol bu ko yabal motax tax jaami yàlla yi daw jëm ci nasu ngir wut lu ñu jariñoo ngir jëm yalla waye nga fexé ba ko fi teew ku ne ngeen duy biiram te yalla tax te du ngeen ko laaj no sant du ngeen ko laaj foy fanani ngeen taxas yeen dëpp dëpp ko te koor ñi ñoom ñi ñoom ba noppi dundal leen ba noppi fanaanee naafila sëñ bi loolu bénéfice bu rëy la doo koor ba ngoon jot nga dogal jaami yàlla yi bañ dog nga jàng ful ku mas koom ànd ko ñoom ba guddi jot nga naafilaab kaamil comme dalul sa xel nag moom ba boo bàyyi bay boo nag toog te jaratul ngay jaamu yàlla kon nag bis boobu nu ngi ànd ak yéen di leen xaar yàlla ci yàlla dogal ñëpp teew nu fas ko yéene noog yéen defe naa àjjuma la. la la première. mooy bii di ñëw insha allahu taala. yàlla na ci yàlla yóbbu. bu àllarba bu ngeen waree daje ngeen daje. bu dimanche bii bu ngeen waree daje ngeen daje. te bu ngeen dajee ñëpp soññeente. man daal bëgg naa wax naa ko biig ak sëñ Xaadim ñu ci benn daayira bo bo bu ñëwoon sama kanam bi ma jógee Touba. dama wax ni il est temps. Hmm. ku nekkoon en retard nga góorgóorlu. jot na ci nun ni jamono xëcce nit ñi tay ji bo demee dakaru da fa fekk marché bo xam nga ne àdduna fa dajé lu ñu xëccoo dëgg la baxna na ndax ubul watan minal iman way abses sees la ñuy xëccoo pour ñom ñu falo wa ko dafa jot ci nun ku ne wut as ab dog mbaaw bëyit mba as adiya bo xam bu heure sàngam jotee nga def nga def ko yàgg yalla nga fatlikoo ci maanaam lu lay fàttali yàlla lu ne jar naa daw jëm ndax yàlla kenn waru koo fàtte waaye lépp loo xam ne boo ko xoolee sa xel dem ci sa borom jataay boo xam ne boo ko xoolee sa xel dem ci borom fexeel ba am jataay bi am ngeen occasion bi dimanche am ngeen ko ajjuma boole yeneen bi yi nga xam ne foo toll sa xel di di suuxatu dynamique ko de de de nammuwaat kon nag nu góor góor lu baax muy góor muy jigéen mu mag ak ndaw maa ngi teg sama bët ci ñëpp nag yal leen yàlla defal jàmm ngeen egg ca te na ñëpp civilisé na ñëpp civilisé da ngeen ko defoon rek bi ñuy dem baaleen di ubbi ji jumaa ja yiw bis la boo xam ne dañuy waajal saxur ramadan al mubarak kon suñu duggin ngir teeru weer wi daa am nañu war a mel ci xol am nañu war a mel ci jëmm am nañu war a mel ci jikko kon na ko ñëpp bàyyi xel préparation wu lu mu mën a doon day jagal la nga jëm xam nga bàyyi leen ci leen ci may doole mooy wàccaay yi màggal Tuubaa leen may doole mooy wàccaay yi waaye wolof leen loolu bett man la moo tax saa yu ñu ci duggee rek yàlla may ñu ci dam ndax da ngeen koy teel a ba ni mu ko waxee moom ñi mbaa bu jàlloon tey nu toogaat di tëdd nelaw ba yow lu suba la bu ñu jógee ku ne xam na noo war a def mooy siyaar bi rakki xidmatul xadim la bu fi xidmatul khadim jaar ba egg fam egg ba sës sëkk ci xalifa sëñ te Ahmad Bamba khadim Rasul ci la waji joge top ko momi tamit ba mën a ci ba wer ko koo jotee mu jox leen teeg moom te wer we gën ci wer yi guddi gu gën guddi yëpp ngi ci waaye ay tàkkusaanam tak ak tàkkusaani leen ambiance bi ñuy dund non wer ko da ngay de ba fàtte koor gi bu koor gi jeex ñun ñun ñëpp dañuy dañuy dañuy stressé ndax namante ko bi mbég mi jaamu yàlla gi nga xam ne doo tal leneen yàlla ko yàlla saxal ci nu ba ëllëg xam nga weeru koor ëllëg yomal xeemat akbar day soppali ku jëmm ju rafet gudd lool ba tiim ñëpp te day rëy lool ba ba ba ba daj ba daj di wër ñi ko doon dundal dafa am ay ay port yu mu amal boppam ci biir àjjana yoo xam ne suñu borom moo ko boo ca bind turam jox ko ay laissez-passer ni ko ñi la doon wor ñoo fi ne moom lay farawhun wa rayhanun wa jannatu nahim am na ñetti bunt ci àjjana yoo xam ni ku dul woor doo fa dugg te bunt yooyu ñooy bunt yi gën a rafet ci aljana ñoo fa gën a dàq ñoo fa gën a neex yàlla ne ko may naa la ko yow ku la dundal ku ne boo léegi ñëwal tànnal ko sa bopp weeru koor day waax ba fekk ab jaam ci biir mbooloo mi mu fëgg boppam mu xool ko mu ne ko jàpp loxo bi ba mu jóg mu ne yàlla kii sama gaay la ko yàlla dundal de laytu xadar cër boobu la am alxuraan cër boobu la am ñoom ñëpp nañu daje ci benn bis daje ci benn weer ñoom ñett ñëpp bu nu songee gaay duñ des bu nu alxuraan songee ak ni ngeen koy def guddi weeru koor song ak ni muy def guddi ah sëñ bi. ñu boole ko fulkul maçon kenn ci noonu du des ñëpp aljana lañ jëm kon nag maa ngi soññ saabu maa ngi soññ ñëpp di soññ ñu waajal xidmatul xadim bi it nañ ko daa defee ci biir war war koor buñ ci ekkeeg jàmm ku ko manit deel romb soxna Mariam rek xam ni taxawut ponk la ñëw rek jàttanu nu ànd ak moom mu yóbbaale ndax tàkkusaan yi waaye mi ngi suñu biir ndax bu jàllee it doon def lañuy def dañ koy dañ laa kon maa ngi gërëm ñëpp ngir xidmatul xadim ak farata ji ci am ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew chaque jour nga am ko bees ko la ni bokk naa ci ba démb démb démb démb soxna xadim yi moom may jox ñoom soxna Binta Jakite ndeysaan yàlla ko yàlla defal tawféex ak ñu dul jeex tur yi ma doon jox démb tey ji rek soxna si sant Gajaga te ñëw fi abi Gajaga jàmbaar la ci lislaam soxna booy juróom bu tedd boobu yabal ko nga xam ne moom foo ko fekk mi nga kurusam ngir xool seen bi rek xool li waa na suñuy doxe sëñ bi kenn du ñoom ne yàlla defal tawfeex ak sutura ku ne ci yéen na ngay defar sa image foo toll parce que représentant wu nasru nga représentant wu sëñ asan ma ngi koy ñaan ci sa yu ngeen di ñew daayira fi ma ngeen di koy dem ci dimanche ba de len yu dañuy yu lu am solo la dañu ay mbokk yo xamni isbu tarikh yi lañ tudd démb dama ci xol ben way muy def gymnastique waaye ak bàyyi laatam la wax mhm. takk ci deram di tëb di dal ma ni waaw ba ba sim nas sax ak bàyyi nga xam ne moom waaye ginnaaw moom daa bokk seen mbir ni mel leen ni fi na ans sax war na buy ñëw su muy tubaab bi sax mu yor lu doog noonu day neex a xàmmee waaw sëñ bi wolof dafa wax ne lu waaye di wuyoo da koy nuru te nun dañu dañoo wuyoo rijaalu sadaxoo mhm. di wuyoo waa nasrullaah di wuyoo waa xidmatul xadim di wuyoo daayira siyaar di wuyoo daayira sopp sa jasa maanaam kon dafa am ay mantaga ñu war a mel te te te bu ma kontaanee dëgg damay dem ba xam ne yéen ñëpp a ahlil janna maanaam da ngeen yiw da ngeen yiw te civilisé te murité te yaay faale loolu daal dina ma neex bu boobaa kon maa ngi soñ ñëpp ci ci noonu acca kon li ci des nag mooy fonk jaamu yàlla rek fu mu di ñu dégmal nag ngir yàlla may nu nu nu am ci ndam joxe woon naa fi ak julli goo xam ni bari na loolu ñu koy jëfandikoo ba tey jii tey tey tey tey tey tey waxtaan ak sëñ bi sax am na lu mu wax léegi ci toog fii ne ne fajkatu bopp laa wax na dëgg de moo ne moom de lam ca télé ba di ko wax fii laa ko waxee woon te ba tey jii boo demee Assane Fall mënta faj bopp dana baye xel daa ko xon fi waxtu bu sa bop day metti nga xof sa loxo bi teg ko sa jebi jang ben fatiha baram bu ne nga jang ci ben basmala bismillahir rahmanir rahim ba mbat juróom yon nga tek tek ko sa ginaaw bop bi ci dom ci ba mbat nga tek tek ko sa wetu jor ci fitim nopi ba mbat basmala def ko ci wetu chamagn ba mat juróom tëral sa loxo ci digg bop bi jang ko juróomi yoon boo teggee boo xawal doxaraay ko ci nu bop bo nu mën mel yalla di limité moom waxul fi léegi ne fi damay mocc lol la amna ñu seeti won ñu seeti won ñu seeti won mam bu ciow fan yi passé da wax ni amutuma jot wax na deug sama kër ko fi dugg mucc tali wax ci asan ko jële té lol doog lay def sëñ kuy wax sëñ xaarim saar ñëw na fi tey mooy ko doon wax ne àjji ma jëlee laa wax na dëgg ànd ak dina ma dégg léegi maa ngi koy yoom yu muy tawat ci boppam ak soxna si bi ñuy waajal ma ne ko na nga julli ñeenti yii def ko te ñaan sa borom tey la ñëw ni ma entreprise ba doon wut kayit yi jafe ma naa ko jot naa kayit yi caabi yaa ngi dama saa tegal nag ne ma am naa marché bi ma jëkk am onze millions la marché baa ngi fi ne bàyyi naa fay gars yi ñu tàmbali ko foofu addi àndaale ma fii laa ko doon waxee de waaye boo noppee suñu yaay dañuy daal di defaraat seen dem seen yoon. bëgg nag fee ñuy jub siyaar bi ngir yàlla may ni ci ndam ñu réussir xam naa sëñ Matar dina ko def ndax mu siyaar bi rek la moom kay moom moom xam naa dina ko def moom fi ne na sama màggalu baal gi mel siyaar mi ëppal na ko lool <laughs> defal ma ñeent rakka yoo xam ne lixlaas rek nga ciy naafila première rakka boo defee Faatiha da ngay jàng lixlaas fukki yoon ak ñaar douze la deuxième bi boo defee Faatiha defal lixlaas vingt fois am nga ñaari rakka saa yee sëlmal jógaat taxaw def benn Faatiha def lixlaas trente quatrième boo defee fàttee defal ixlaas quarante cinq ñeent rakkaa la douze vingt trois trente ci wolof sama mbokk américain anglais yi neen naa bàyyi français yi kon <coughs> fukk ak ñaar ginnaaw da nga am aajo te bëgg yàlla faj ko ginnaaw fàttee bu ñaareel bi nga def ko ñaar fukk ci lixlaas ak ñett ginnaaw fàttee boobu nag da ngay taay silmal jogat andi sa ñettelu rak bo defé fatima nopi fan wéri l'ikhlas ak ñent ñentel bi bo defé fatima nga def l'ikhlas ñeent fukk groom so soo boolee ñeenti nombre yi ma wax 12 23 34 45 témer fukk ak ñent la manam fo sëlmale am nga yollu ko wacce kañu am nga yollu ko wacce kañu su ci duggé day bari détail bo demé ci suratul ikhlas am na benn baat buñu wax lam yalit dafa na ne comprendre ngeen ko lam bi wer la mim bi ñeen fuk la bo boolee am nga am nga juroom ñaar fu yaakaar naa lam yalit da ngay bayyi yaagi am na gu ko fi rekalam demal nga ramassé ko taf ko ci juroom ñaar fu nga amon amo del si ginaaw xoral yaa nga bayiwon fukk la ñu téeméer fukk dellu ca deel ga ñent la 114 quatorze aha foofu la ko yàlla def ci ruub bo julé julli ji moom ngay jàpp exactement dégg nga wax bi soomee faratee nekk toog bi nga sel ma sëlma fi nga toog jàng fàttee juróom-ñaari yoon cadeau bu rëy laa leen jox damaa kontaan ci mbalit daa di jàng xul wala waxat moomu jàngaat ko ñeenti yoon képp nag laa wax julli ci yonent ma lixlaas ak juróom ñeent ak fukk ak juróom du 19 ap adat la de am na seen xarit xam na ko mu bàyyi taal la 19 moy santar sandarma yële waye moy orofu basmala waaye taxumaa jóg da ngay wat ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñaari yoon déglu li wax nak be ba nga defee juróom-ñaari faté jang ñent l'ikhlas ben salatu nga def bi nga defee fukki yon ak juróom l'ikhlas ñaari salatu la la ñaan ana ñett la mhm. nga toog si karaat laas moomu quarante sept fois teg ko ci booy laal rek di li yëf am na ku ma waxoon ne ma bul ko laal bul ko jige <laughs> borom sikkim boobu lool la ma waxoon gisoo ko moom gis lim kenn du ko wax ci kaw de xam <laughs> naa soxna Mbaye Seck rek koy comprendre Baye Talla génne na ko moom 4 15 ak 47. gis nga lim bi ngay am tiireel booy tiir booy dóor muy su ci noppee moom moomu defoon nga benn salaatu def nga ñaari salaatu bu noppee defal ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñetti salaatu lu mu la jox du siis walaahu min waraahim muhiit bal huwa an majfiratin mahfuus waaw gi ñëw na ñoo ko 66. wax kay mooy kan 66 defe naa xam ngeen waaj mooy ponkal mag mi de maanaam lixlaas moo jàpp yàlla dañ la wax ne nationalité suñu borom carte d'identité yàlla carte d'identité mooy lixlaas carte d'identité baa ngi nii 4 15 47 mu jox la carte d'identité nationale suñu borom tabaraka taala téeréem bu mag bi wàcc ci biir fan la ko def mu doo ko ci lam bi téere yi wàcce asamaan jëm suuf 104 la 104 téeméeri téere ak ñeenti téere moom la yàlla jox yonente yi ñu wàcce ko am déet lexlaas ko téye waaye jiwaay rëy téeméer ak ñeent mu ko ca samadu saat ñaata la 60 bindal mbiim ñaata la 40 daal bi ñëw di 4 samadu moy 104 moy témir téré ak ñeent téere yi nga yalla wacc ci kaw suñu ñu yonenté hmm kon kamil baangi ci bir lam yelit téeméer far ko ñen mi ngi ci samadu waye ismu shati mi ngi ci bir l'ikhlas akari yi mom kessé ñaar fukk turuk ben lam mom l'ikhlas yo lixlaas boko wo mu wuyu la waxtan naa ko seen xadim kon bo bo defé nafilé bi ba noppi toogal jàng lim yii waxuma la siyaar bi de waaye aj ci koor gi aj ci gi aj ci kër gu eggul gi aj ci soxna si aj ci nangam aj ci yàlla da koy faj hmm? may naa leen ko yéen ñëpp ak ñi may diglu aajo bu waay amati rek maanaam woolu yàlla boo amee njàqare woo ko ci nii boo ko defee suñu na dana ko saafara ci kàttan suñu kon lool moy kàddu gi ma leen may ma ngi ñaan ñëpp nañ ko liggéey ñaan bis bi ngeen dégg man señ mata nga lañ daloon bari ba mëno wacc auto oto ba soo moytuwul lu ngeen fi togg du doy yalla mom jam jaam ñi waaye da leen jox xéewal yo xam nepp seen seen seen seen loxo bu ngeen ko liggéey nii te ñaan señ borom ak lu nekk ci seen biir rek ngeen di tok di jang di nafila ikhlas bi te di ko li di te di ñaan seen borom yalla da koy fajj yalla da koy fajj mais am ku woo nag ni ma waroo koon a ndax laal nga sama <laughs> maa ngi koy jégalu ñoom ñoom yaay faal yooyu yal na yàlla defal leen tawfeex ak sutura kon nag loolu rek lañ ci barkeeloo na ko ñëpp def nag julli gi ñeenti rakkaay yii ku mënta wirdi wirdi defal ñeenti rakkaay te ñaan suñu borom yàlla defal ci ndam may ñu it nu woor weeru koor bi ci jàmm ak salaam yéen ñëpp ngeen am kattan bañ a wéradi bañ a loof maanaam fi ne am yéene woor ba ci digg ba am lu la gàllankoor lu bokkut ak ngàntul jigéen loolu ñaan lu ko yàlla ngàntul jigéen moom daa bokk ci ci sart yi waaye ku wéradi bañ koo def yàlla na ci yàlla musal nga am sensu dugg ci lu baax wata doo ko eggalee am na am sensu dugg ci lu baax doo ci bokk am na am sensu bokk ci ba ci biir doo ko eggalee am na waaye dugg ci biir ba noppi eggale ko loolu moom beneen affaire la yàlla nañ ko yàlla may ah ko yàlla may ñun ñepp ñu ànd ak jàmm ànd ak xewal buñu ñu leer nañ bi jaay rasul alayhi salaatu wasalaam leex naas nag mën na ko kon lo rek moy li di jox tay ji na suñu dafa len tawfiq dafa len sutura da dafa len dimbal ta may no xol yu sopante lol ak ak ak poche yu fess ak keur yu jubo njabot bi jaay rasul alayhi salaatu wasalaam barka xaarim rasul من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برمنا الله دين جاه